mbokk jullit yi di gën a sant yàlla bu baax gën a santaat yàlla si lim ñu baaxeewaat ba alhamdulilah tey am nañ fukki fan ak juróom-ñetta subhanallah ah alhamdulilah bon comme ni ma ko waxee rek li ñoo ut wala li ñoo séntu mu ngi suñ kanam waaw muy li nga xam ne mooy last ten days si mbokk jullit yi waaw last ten days si dafa mel ni ñaari fan rek a si des léegi ñaari fan. ñaari fan ñu duga si last ten days si mbokki jullit yi ah kañ ba léegi ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala si kaatanam ak yërmandeem yàlla may ñu fekkee ko yàlla ñu ko yàlla may amin ya rab allahu akbar mbokki jullit yi ñu war a gën a góorgóorlu war a gën a takka suñ digga ne ah fi ñoo li ñoo ut mu ngi suñ kanam lu ñoo yootu mu ngi suñ kanam te incha allahu dinañ ko jot incha allahu dinañ ko jot last ten yi ñu gën a takka suñ digga gën a pare jaamu yàlla waaw xam ne macha allah lu ñoo upp suñ suñ kanam te yàlla ñu ko yàlla may fekkee mbokki jullit yi amin ya rabbal alamin mbokki jullit yi ñu dellu si waat suñ tafsir quran bi di suratul munafiqun muy saar bi nga xam ne yàlla ko tuddee borom jikko yu bon yooyu mooy naafexa naafexa du jikko ju baax ba na yàlla subhanahu wa taala e, wax na ne ñoom ñooy nekk sa kéemi safara ba yàlla subhanahu wa taala di wax si aya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 الله يلا سبحانه وتعالى من يندي محمد إذا جاءك المنافقون إيه يا, يا محمد إذا أتاك المنافقون وحضروا مجلسك كعبد الله ابن ابن أبي ابن سلول يا الله سبحانه وتعالى من يندي صلى الله عليه وسلم بنا في خيني كملني عبد الله ابن أبي ابن سلول كي خامن مون تشيفي نافخاي بو نيي سي سا جوتاي fi nga xamee fa ngay waxtane ak sahaba yi ah bu fa ñëwee téwé ci lan la ñu qalu nashhad innaka rasulullah ah ñun de seede nañ ne ya yaa yonent yàlla bi de ñun kañ mom amuñ ci ben ñaari xel ya yaa yonent yàlla bi waaw ñom loolu la ñu wax bi alsinatihim nifaqan wa riyaan manam li ñu wax seen lamagne naafee xalañ waye ngistal la wax ndik sahaba yi nga xamne ñu ngi ànd yonent bi alayhi salatu gom yonent bi alayhi salaam gom na yàllaa ko yónni ñoom du ñëw si jotaay bi bay wax ne ah ñun daal gom nañ ne yow yàlla bi déedéet parce que ñoom ba yonent sallam ñëwee ak OTM bi si lañ ko gom nekkuñ loo xam ne eh, dañ ko wax saay bu ñëwee si jotaay yonent bi alayhi salaatu salaam waaye naafixa yi pour di wane li nga xam nekku si ñoom saay bu ñëwee si jotaay bi rek dañu ne yonent bi salaa sallam ah ñun daal gom nañ ne yow yaa yonent yàlla bi واو نشعر بانك يا محمد رسول الله يقول بألسف بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لي وهناك لا من رك لنكو وهي وإيقو سين خلوي يا الله سبحانه وتعالى دل تونتو يا لنكو والله يعلم إنك لرسوله من والله عز وجل يعلم أنك يا محمد رسوله حقا واو نيوم لي وهني وهي لا من لا وينكو سين خل يا الله سبحانه وتعالى ñëw nag pour digal ne yonent bi salaa sallam li yéefar di wax nii man mi la yoone axa kañ yow yaay suma yonent digga digga digga boo xam ne kenn mënu koo weedi waaw ñoom nag seen xool gomuñ la waaye pour man man yàlla maa ngi digal ne yow yaay yonent bi waaw yaay ki nga xam ne yaay mu jëm si yonent yi yëpp amul benn yonent bu ñëw sa gannaaw mu ne wallahu yashhadu inna almunafiqina la kaazibun waaw mu ne yow yàlla yon yàlla subhana taala di wax yonte yàlla muhammad salaa sallam ne ko nag xaaral ma séedal la naafe xayi li ñoo ñëw di wax ne yow yaa yonente bi dañoo fen de ne eegu seen xol de waxi laamiñ la yàlla subhana taala mu ne maa ngi serne di wane ne yéefar yi li ñoo wax du dëgga waaw ñii ay naafe xalañ la nekk seen biir xol ya ak lu ñoo wax daanaka du beena dëkk mbokk jullit foofu ñu seet ndax loo jikko boobu nag ndax ba léegi mu ngi si ñun من والله يشهد ان المنافقين لكاذبون واو يا لنك ففلا فين يا لسين تور نينا غيسا ني اي نافي خلاج واو ينتب علي الصلاه والسلام موغي غيسو كي خا من موي عبد الله ابن ابي ابن سلول كي خا من موي نجيتي منافق نافي خاي واو مو نيو دي جولي دي اندك يونس عليه وسلم سي هاري واي نديكتي نافي خلاج yàlla subhana taala nag ñëw na feeñal leen wallahu yashhad inna al munafiqina la kaazibun yàlla mu ne maa ngi serne ne naafi eh, yéefar eh, eh, yi dañoo fen waaw seen wax jooju gomuñ gomuñ ko de xam nga loolu bari na si doomi aadama ngay waxa nit ki fekk li nga wax sax egu sa xol waaye ndeysaan kooku mu ngi foog ne yow yaa ngi ko bugga waaye li nga ko wax dëgg la waaye fekk ndeysaan mu ngi am beneen plan mu ngi am leneen lum lal loo xam ne ute naak lum laa wax te loolu su fekke ne nit ki def ko def koy def pour ore koku mo ngi ci jiko nafiha waaw mo ngi ci jiko nafiha comme ni nga ko waxee rek ayatul munafiq salaasa ida xadasa kadhaba ida waada akhlafa wa ida wa ida utmina khana waaw moy ne jiko nafiha moy lan ki nga xam say bu bi mu waxee rek wax nakasu non wax fen buñ ko olé tanako jital ko mu or waaw waye tamit lum dugee lum promise lu mu diggee tamit du ko def def lay dig yaakaar yaakaaruloo bi ngay yaakaar ba last minute mu de joxe la gannaaw du ko def koo xam ne lii sa jikko la tamit bàyyi ko otherwise dina la catégorise dina catégorise si ñi nga xam ne ñooy naafeexa yi te naafeexa nag wax nañ fan mooy dëkkuwaayam yàlla subhana taala mu ne wallahu yashhadu inna al munafiqina la kaadibuun yàllaa nge sér ne ne naafeexa yooyu dañoo fen waxuñ dëgg de ittaxasu aymaanahum junnatan ay ittaxasu aymaanahum alfajira fi wiqayati wa sitrihi yasturuuna biha min qatlin mu ne nag ñoom dañ ñëw comme li olof di wax rek ay bukki yu sàngoo dari béy lañ dañoo ñëw di feeñal loo xam ne nekku si seen gannaaw waaye seen pexe yépp naka la ñoo reyee yonent bi salaa sallam ak saxaaba yi nga xam ne ñoom la àndal parce que kii nga xam ne mooy abdullah ibnu ubay ibnu salul comme ni ma leen ko waxee si dar si démba bi moom moom lay waroon a fal pour mu nekk alkaalo Medina balaa yonent bi sallam di gàddaay foofu bi yonent bi sallam gàddaay ñoo madina ñoo woon leen fii amul kii mooy kii kii ma ñëpp a em kullukum min aadama wa aadama min turaab kenn gënu ken ndig jamono jooju dafa amoon ñaari xeet yu nekkoon biir Medina ñu ngi ko wax Aws wa wa eh, Xasraj ñaari xeet yi rek dañ daan nekk di xeex rek mosuñoo juboo yonent bi sallam ñëw nag boole leen def leen ñëpp ñu nekk ay beena woon leen ni ñoom ñëpp a em kullukum min aadama wa aadama min uturab ñu ñëpp si maam aadama lañ jógee te aadamaa ngi jógee si suuf bon kenn gënul kenn xanaa ki gën ragal yàlla abdullah ibnu ubay ibnu salul nag njiiti njiiti naafeexa yooyu loolu moo na naxari woon si xolam loo taxoon muy wone li loo xamee ne li moo wax ak li nekk si biir du beena waaw loolu nag moo taxoon dunda yonent bi salaa sallam metti woon Madina ndik ñooñu yëpp yonent bi salaa sallam mu ngi leen noon gisee ne ñii ay jullit lañ ñu baax lañ ñu ngi ànd ak ñoom xam nga waaye ndekete ñoom xibaar buñ jëlee si yonent bi salaa sallam rek yóbbu nañ ko si yéefar yi wax wax leen ko wala si ñi nga xam ne ñooy yahud yi waaye bi lay yàlla feeñale nag yonent bi salaa sallam dal leen xam ñii ñooy naafiqa yi moo tax yàlla subhaana taala mun nag innahum saa ma kaanu yaamaluun waaw itaxasu ay maanaam junna fa saddu an sabilillah ñoom daal li seen liggéey yépp mooy ne bu yonent bi sallallahu alayhi waaw naka la ñoo reyee islaam naka la ñoo jeexale islaam loolu mooy woon pexe naafeexa yi te su ñu ne allahu akbar ñu ne allahu akbar bu ne la ilaha illallah ñu ne laa ilaha illallah waaye seen yooyu yëpp si laamiñ bi la em eggu si xol bi allahu akbar yàlla subhana taala nag mu ne seen pexe mooy lan naka la ñoo dogee yu oote si oote yàlla yi waaw ne fii daal kenn fi ooteeti yàlla loolu la gars yi doon tray moo ñoom eh, naafe eh, naafexa yi yàlla subhana taala mu ne innahum saa ma kaanu yaamaluun moo ñu nekk seen pexe ak seen jëf yëpp yu bon la woon waaw li ñoo ñëw di wax ne ànd nañoo yéen si so soo demee si suratul baqara lan la ñu wax ida laquukum qaalu amanna wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna maakum innama nahnu mustahzi'un ah li mooy seen mbir waaw buñ tasee jullit yi ak yénte bi ah ñoo ñoo yéen la de yéen lañ àndal de yéen lañ faral de buñ joxee gannaaw rek ñu ne xay ñii xaaral rek li ñu leen naa waajal fii li ñu leen naa pare fii ñii kañ moom bàyyi la rek ñu leen naa ñaawal rek waaw ñu foog ne dañ ànd ak ñoom waaye ñun ànduñoo ñoom ànduñoo ñoom bon lii mooy naa naafiqa yàlla subhana taala wax wax ko yéen so tam zalika bi annahum amanu summa kafaru waaw bon nag naafeexa ndekete yéefar lañ ko mun a catégorie moom mu ngi si catégorie yi yéefar yi yàlla subhana taala mu ne zalika bi annahum amanu ñoom gëmoon nañ de waaye añaan bi nekk seen xol tax ñu weedi ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أي ذلك حلف الكاذب وصد عن سبيل الله بسبب أنهم آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم ñoom seen laameñ lu ñoo wone rek mooy ne gom nañ waaw laameñ bi لوتح مبوك جولتي ريال سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى أجزامكم ولا ولا إلى أسواركم ولكن ينظر إلى قلوبكم يا لمن خولو مسين جما خولو مسين ملوكان خولو مسين تار لن لا يخول سين خولي كيسا خولي مبوك جولتي فلا يب نيكا خولا نافي خيرك لنيوه يب سلام سلام لنك وهي وينك سين خوليا نغوي إسلام ريال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا waaw ñooñu gom nañ si laameñ waaye seen xol yi ay yeefar lañ waaw parce que ñu ngi wax lan kalimatu shahada mooy li ma dee wax rek naafeexa dafa garaaw dafa dangereux boo ne laa ilaha illallah mu ne laa ilaha illallah boo ne astaghfirullah mu ne astaghfirullah boo ne subhanallah mu ne subhanallah boo ne ashhadu an laa ilaha illallah mu ne ashhadu an laa ilaha illallah waaye nag fii la em si laameñ bi la em eggu si xol bi su ko defee kooku da nga ko aatee yàlla subhanahu wa pour mu noppal yonent bi salaa sallam dafa ñëw feeñal ñi nga xam ne mooy naafeexa yi loo tax kenn si ñoom muy abdullah ibnu ubay bun salul ba mu dee yonent bi salaa sallam dafa ñëw di ko julli aboubacar féete ko gannaaw xicca mbagaam bi ne ko yaay juli kii ki nga xam ne yéefar la ki nga xam ne naafeexa la bi salaa sallam ne ko déedéet bàyyi ma julli ko yàlla wàcce aaya support si omar loo tax Omar am lu ñoo ee muwafaqaat yu bëri yoo xam ne Omar am na yoo xam ne dafaa ñëw di diisoo yonent bi saa sallam maanaam joxe aydiyaam joxe xilaatam yonent bi saa sallam yàlla ñëw supporté Omar loo tax benn bés am na ku doom wax mu ne waaw Omar daf daan xuloo ak yonent bi saa sallam yàlla ñëw support Omar ma ne subhanallah subhanallah subhanallah loolu mooy ñàkk xam diina dëgga dëgga dëgga saxaaba yooyu amul kenn ku see xuloo yonent bi saa sallam wala kuy utee yonent bi saa ñoom ñëpp yéen salaam moo leen jàngal moo leen gën a xam alquran moo leen gën xam yàlla waaye nag yéen salaam yaa def ko ne wa saawirhum fil amr na ngay diisoo ak ñoom diisoo loo tax parlement parlement mi nga gis ni tubaab bi am si islaam islam la njëkkee wa amruhum suura baynahum yàlla ne seen biir na ngeen ko waxtaanee seen biir saxaaba yi dañ daan am ay idée yu rafet xalaat yu rafet ñooy wax ko yonent bi sallam yonent bi sallam ne leen amaguma ci ndigal yonent bi xam ne lii ñii li ñu wax right na dëgga la waaye dafa xaar si yàlla Omar nag yooyu bari woon na yu bari yoo xam ne ko daan xelal yonent bi salaa sallam wala diisoo ak moom wax ko ko yonent bi sallam ko yàlla ñëw support si Omar mel na ni lu ko mel ni yéefar naka naafiqa yi yàlla subhaana taala wàccee aya ne ko wala tusalli ahada minhum immaat waaw bul juleeti kenn si ñoom bu dee yàlla wàccee aya nit jamono joju yonent bi salaa sallam xamoon na ñen ñooy naafixa waye ba legi bi kenn bi kii dee mu ko don julli waw nit ba legi mu ko jappé ne eh, mu ci si bi yalla nak ñoo feeñal ko ku si deeti ci ñoom bu ko juleeti si nonu, ibrahim bi nga be mom la ñoo ibrahim mu ngi nek ci bori kaaba gi mu ngi sa kaaba gi ibrahim moy fim daan taxaw di tabax kaaba gi omar ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax duñ jël duñ julli ñaar raka gannaaw buñ tawaafee ba pare ndax duñ def ñaar raka maqaamu ibrahim yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne awma ci ndigal yàlla subhanahu wa taala wàcce aaya wa taxidu maqaamu ibrahima musalla suuf la lii la yàlla subhanahu wa taala baaxee woon omar waaye nekkul koo xam ne daf daama wérante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam asa wa kalla loolu amut loolu nag yàlla subhanahu wa taala mu ne nag dalika bi annahum amanu suma kafaru mu ne naafixa yooyu gom nañ si seen laameñ waaye seen biir xool dañu weddi ay yéefar lañ waaw yàlla subhana taala mu ne fa tubi ala qulubihim yàlla subhana taala dal di siil dal di teg seen xol ya nga xam ne iman gom mun na faa duga parce que ñoom lañ jiital mooy yéefar weddi waaw di wone loo xam ne ku seen seen seen xol yi yàlla subhana taala ne aha comme lii ngeen mel nag xaaral nag ma teg seen xol yi islaam ak leer islaam ak leer iman gom yàlla du dugaati waaw si yéefar ngeen ay dee si naafixa ngeen ay de yàlla ne inna al munafiqina fii darki asfali min an naar allahu akbar yàlla ñu yàlla mosal si naafixa mboo ko julliti muy jikko bu bon bi nga xam ne ba léegi mu ngi am suñ biir ba léegi mu ngi am suñ biir te war nañ ko mun a bàyyi mbokk julliti war naa leen hadis bi sànqa ki nga xam ne saay bu mu waxee li ma wax du wax dëgga kooku bu benn si melokaani naafixa ki nga xam ne suñ ko oolo jiital ko ñëpp oolu ko jiital ko mu or ki nga xamné say bu mu diggé nit ñi lam diggé du ko def koku tamit ko ko len gis lolu nek jikkoom sa tuubul si kooku koku kooku mu amna mandar ga naafeexa te yàlla subhanahu wa taala mu ne nag innal munafiqina fi dark asfal min nar yàlla yàlla mu sa naafeexa mbokk jullit yi bon nag yàlla wa taala mu ne fa hum laa yafqahuun fa tubi ala qulubihim fa hum laa yafqahuun ñooñu daal fu mu duñ xamati dara ay fa hum laa yaarifuuna al xayra mina charrin lu baax si lu bon xametuñ ko waaw maanaam jub ak jubadi dara ñoom daal lu nekk rek ah kañ waaw gom nag nekkaatu seen xol waaw ndig lan ay naafeexa lañ ba pare duñ ràññee li nga xam ne mooy yéefar ak imaan mooy gom yàlla loolu yàlla subhana mu ne ay ida raaytahum tujibuka ajsaamuhum ay raaytahum tujibuka ajsaamuhum subhanallah maanaam soo leen gisee ak seen melokaan maanaam ak seen taxawaay ak seen jëma nga macha allah ñii kay moom he ñii ay nit yàlla lañ because lu ñoo wonewu loo xam ne ci biir comme li nga xam ne bari na suñ biir nga gis koo xam ne ay xaftaan yu rëy la moo sol téye kurus ñu ne waliyu yàlla baa ngi nii subhanallah la la ko def waliyu lan moo ko def waliyu yàlla ne ala inna awliya illah humul muttaquun xam ngeen kan mooy waliyu yàlla mooy kii ragal yàlla yàllaa ko de waaye ñun fekk soluloo waramba bu rëy mbaxana bu masala door kaala bi tiye kurus ñu ne ah waliyu yàlla baa ngi nii yàllaa ngi woon ak yéefari naka naafixa yi ida raaytahum waaw ida raaytahum tujibuka ajsaamuhum ah kañ xool leen gaa yi nag ak borom xam flaan yu rëy yi ak kurus yi ak seen kaala yi soo leen gisee naka nga dee foogee ñu bare fu ñu romb rek sëy bi ñaanal ñu sëy bi nangam ñu te ndeysaan la nekk ca biir yàlla rek ko xam ñu bëri ay njabraankat lañ ñu bëri ay xerem la ñoo jëfandikoo waaye foo leen gis ñu nga téye seen alquran ñu nga téye seen kurus ñu nga téye seen kaala ba bu rëy dawmee ko ba mu fees del waaw egg si moto bu neex nag ñu naa ah, sëriñ baa ngi nii ko def boobu bu ñu nax de seet kooku ndax nañ gis si moom ragal yàlla borom xaftaan yu rëy yooyu ak borom kaala yu rëy yooyu borom kurus yu gudda yooyu seet si ñoom ndax nañ gis si ñoom ragal yàlla la ñoo lekka fan lañ koo jëlee la ñoo solo fan lañ koo jëlee la ñoo naan fan lañ ko jëlee seen dëkkuwaay fan lañ ko jëlee ndax ñoo ko liggéey tappale ak ñaxi nit ñi ak ñaxi nit ñi lu ta ya yàlla subhanahu wa taala di wax ne xoolal naafeexa yooyu so leen gisee ak seen jema rek wallahi nga ay nga yeme ci ñom nga ne ñi ñoy ni ñu bax ñi waaye ndekete mbiri di si jëma ji de te wax naa le ko hadis bi yoon sa yàlla mu ne xoluma seen jema ak seen melonkaan lu may xool seen xol nga gis nit mu nga sol sagar nga xeeb ko nga xeeb ko nga bu ko sa mu ñoo ci sa jotaay ndik sak lam sol ndekete koku mo la gënal jigeen yalla kooku moo gën a moo la gën a ragal yàlla yàlla kooku moo gën borom xaftaan yu rëy yi nga topp ak borom waramba yu rëy yi nga toppa waaye bi ko sof soluwaayam ak wàccee boppam si kanami nit ñi ngeen xeeb ko te yàlla ne xoolu suñu jéem ak suñu melokaan xool yi loolu yàlla di di ñu woon nag yéefar naka naafixa yooyu seen melokaan naka la rafetee macha allah ak seen jëma ak mun a solo waaye loolu du islaam waaye ñun nag fekk sa ay wara yu rëy ay kurus ak yooyu téyewloo kurus ñu ne kii amul diine ak wax ju nee du noonu ndik li ñu wax si naafeexa yi ah kañ yàlla war nañu ko wax ju nee kenn daawu leen a wax ju nee kenn gënu am forme kenn daawu leen a sol lu baax waaye kenn gënu leen a wone tamit ne ñoom gom nañ ne yonent bi saa yàllaa ko yooni loolu yëpp ay waxi laameñ la loo tax mbokki jullit yi laameñ bi gisa xool bi moo am solo lay gën si xol bi si laamin bi la moo mujje waaw bu dee gom yàlla bu wér moo sig sig sig sig laamin bi du ko wax sax sa jëfin ak sa melokaana nit ñi moo koy wone diw de ku ragal yàlla la ndig lan ni ngaa jëfalante nit ñi ni nga mm, sa melokaan si biir nit ñi na wone na am na lu ma wone doo xam xanaa kii laa indi hadiya kooku da nga amal sola ki ki ki gën a joxe hadiya bu duuf kooku mooy ku am kooku mooy am ku am diine bi waaw ku amu dara kooku moom bokkut waaw nah. yàlla ya subhana taala mu ne soo leen gisee ak seen jëma waru waaru si ñoom waaye nekkite ay xoota la léegi-léeg nga gis si biir a ngi si bitee ngi rëy waaye nekkite biir dara nekku fa bon mbokki juliti yi yàlla ñu yàlla musal si jikko naafeexa yàlla ñu yàlla musal si jikko naafeexa allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم يا ربنا إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وعنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يا ربنا لا تدع في هذا المكان ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريا إلا شفيته ولا جائع إلا أتمته ولا كار إلا كسوته ولا مريا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة في الدنيا والآخرة لك لنا بها رضا ولنا بها صلاة إلا أنت وسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلالك ويحرم حرامك واجتنب كبائر ما ظهر من وبطن يا رب العالمين اللهم في موتانا وموتى المسلمين وارحم موتنا وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر وعفو واكرم نزلهم ووسي مدخلهم وعسل الماء وسلو البرد ونقيه من الذنوب وخطايا كما ينكى الثوب الابيض من الدنس يا رب العالمين اللهم يا ربنا ارزقنا واياهم جنة الفردوس يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم دعي مرضانا اللهم عافينا اللهم عافنا اللهم عافنا اللهم البسنا لباس الصحة والعافية اللهم البسنا لباس الصحة والعافية اللهم البسنا لباس الصحة والعافية رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا والركوعنا وتضرعنا يا رب العالمين اللهم مد لنا شهر رمضان عواما عديدة اللهم مد لنا شهر رمضان عواما عديدة اللهم مد لنا شهر رمضان عواما عديدة ببركة وصية اليمن يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجي من لا إله إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجي من لا إله إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجي من لا إله إليه حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله دعوناك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أتيت اللهم يا مفرج الهموم ويا منفذ القروب فرج همومنا ونفذ قروبنا واقض ديوننا واختم لنا بباقيات صالحات أعمالنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا عبار يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وصل اللهم على حبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تجلسين بارا فمانيو